maa ngi leen di gërëm ci ñëw gi ngeen ñëw di leen nuyu di nuyu ñu ngeen di liggéeyal yépp di nuyu euh, senegal yi nuy xool li ñaan yàlla liñ fi wax amal njëriñ réew mi. président fan yi ñu génn da def benn sortie bi Aliou waxee waxaat léegi nga def benn sortie gis na coow li mu jur ñu bëri comprendre nit ñenn ñu comprendre ne waxuñu mais ñenn attaques yu bëri. bu démb doon bu baax a baax a baax a baax tey doon dé bu la amoon bu amaatee ma defoon la ma defaat. ak ni ko waxee lépp. dara du ci soppeeku xam nga senegal nag ñun ñooy réew moo xam ne euh, boo koy xool ba yàgg da nga yaakaar ne dañuy dañoo foo parce que nit ku wax lu dul dëgg mooy nit ku fen ki ko ne da ngay fen mënu koo mënu def lu gën a bon fen. loolu nag man jaaxalum parce que Sénégal ngay gis réew moo xam ne dañu ne fen wuy defar moo gën dëggu yàq am réew bu xelam delloo gannaaw ba mu ñemee wax loolu boo fa ne da ngay fen nit xëy na mu naqari ñu koy dégg waaye li am solo rek mooy li ma doon leeral jàpp naa ne leer na naññ parce que dama waxoon ne mbirum moom mu génn ci liste bi ak ak nijaayam ci président Macky Sall la jóge jógewut ci kenn moom dong moo ko décidé waxu ci kenn. loolu nag ba ma ko waxee fan yu mujj yi président de la République jàkkaarloo na ak i ndaw fii ci benn hôtel ne moom moo leen ko wax man loolu rek moo ma soxla mooy sama der set ndax ma du ma fukkoom kenn bay doon rawatina ci nag di doon fukkoom président Macky am na ñu ne da nga mere Aliou moo tax nga waxee noonu. déedéet daf ma tooñ. Ah, xam nga su fekkente ne mbir daa am man mbir ma bañ koy def yëguma ko géntuma ko boolewuñ ma ci ñu taqal ma ci. dañ ma tooñ Sénégal nag dañ ne dañ naan xamuñu ko tooñ ku fayu lañ xam loolu aussi dafa bokk ci jàngoroy réew mi lu ñu war a dindi ci suñu bopp. Aliou la tooñee. dafa ma bokk ci ñi dafa ma boole ci ñi mu jiiñ ne. xam nga la ca biir doo ko mën a xam. waaye man xam naa ne man lay wax bokk naa ci ñi wax président Macky Sall xam na ko moom it xam na ko. waaw loolu ñaar yooyu rek loolu lépp dafa am parce que bu fekkonte ne man bu tudd ma ci sama xel a tontu raw waaye nag jàpp naa bu ñu bu bu nit ne palais dafa may ay yoo xam ne dañu nekk ci ginnaaw président Macky Sall di ko di ko di ko manipuler benn du teggin ñaar du dëgg bu fekkee daa caa bokk nag la nga xam ne man moom war mooy ma sexal ma setal saab der ba mu set wecc yëf ya daal ba muy am yëguma ko géntuma ko fekkiwuma ko tooñ na ma Sénégal nag nee nañ xamuñu ko tooñ ku fayu lañ xam waaye loolu dama la wax sànq rek ne la ci jàngoro yi mu dal ci réew mi la moo tax ñu ñemee wax ne fen wuy defar moo dëgg gën mhm. Mhm. li ñu fa gis lépp wute naa ko rupture ah Mamour Cissé moom dem na ban sax mooy mooy législature a nuyu bi législature amee ba léegi parce que tellement que benn projet de ndànk dafa ndànk xam nga euh, daam loo xam ne. mbirum journaliste la xam nga journaliste lan mooy liggéeyam laaj ñu tontu ko boo commenté dama lay bàyyi ak sa commentaire commentaire u ko tontu. léegi assemblée waaw loo ciy laaj. ah loolu commentaire la ba léegi sama sëriñ. déedéet. loolu na kay xam nga mbir yi dama la wax ne la man. Euh, kii laaj da am boo amee sañ-sañu laaj man am naa sañ-sañu ton la ko mën naa la bañ a tontu nag waaye nag sa commentaire moom dama koy bàyyi yow commentaire u keneen nit du ma ko commenté parce que loolu xam nga ñun bi ñuy ñëw bëgg nekk député di lawaan baatu réew mi lawaan def campagne dañoo waxoon Sénégal dañu bëgg ngeen jox président Macky Sall majorité boo xam ne ci assemblée nationale dina ci mën a sukkan sukkandiku ba li nga xam ne moom la sas moom la ko mi sas ak li nga xam ne moom la yéene réew mi loola ban fa toogee juróomi at yi weesu lépp loo xam ne président la République joxoñ na ko te assemblée nationale am ci cër bu mu war a joué bu mu war a joué bu mu war a jël group parlementaire joué na ca nam ci war a joué lu wote loi yi mu fa indi yëpp wote nañ ko rawat li ci ëpp ci wàllu loi sax bu ñu koy wote dina ëpp li nga ne moom la am ci kon ci wàllu accompagner président Macky Sall ba li mu li mu sas li mu sasoo réew mi man koo dox li réew mi xaar ci moom mën ko def kooku assemblée nationale rawatina ci groupe am def na ci liggéey ba ca war benn am na koñ boo xam ne point ponk yoo xam ne jàpp naa ne waroon nañ ci gën a góorgóorlu ci assemblée nationale te mu des muy lu mel ne euh, commission d'enquête parlementaire député yi am na yu bari ñu demandé de euh, commission d'enquête parlementaire waaye wax dëgg yàlla maanaam sottiwut demandé nañ ay audition waaye sottiwut waaye mën naa la wax ne la am na lu ñetti ñaari poñ yoo xam ne rupture yu bees pour la te ñoo ko indi assemblée nationale bu njëkk ba mooy li ñuy wax traduction simultanée maanaam bu fekkente ne da dégg làkku réew mi keneen di wax ci làkk réew mi ci biir assemblée bu fekkee yaa ngi ci plénière bi li mu wax lépp da nga ko xam la ko traduire la bu fekkente ne dañuy làkk tubaab daañ ko traduire ci làng làkk yi ci réew mi ba ñi nga xam dégguñu tubaab daañ mën a xam lay xew ci la ñuy wax loolu jàpp naa ne jéego rëwu ko ci rupture. bi des am na lu bees lu ñu indi muy li ñuy wax question d' actualité au gouvernement maanaam weer wu dee bu doon benn yoon sax ñu indi premier ministre assemblée nationale moo gouvernement bi député yi laaj leen ñu tontu leen loolu lu bees pour la te ñëw ko fi indi ñetteel bi muy lu am solo muy li ñuy wax les les les visites de terrain maanaam député yi wàcc dem ci biir terrain bi xool li nga xam ne mooy budget bi ñu wote naka la ko gouvernement bi doxalee loolu dox nañ ci jéego yu mag a mag a mag a mag. xëy na nag loolu buñ koy def presque bi du ko fekkee ba tax xëy na ni ko Sénégal yi waroon na xam duñ ko ni xamee loolu jàpp naa ne war nañ ci indi ay jubbante kon bi ci des mooy euh, ñun ñun ñun rawatina ñun groupe bi ci njiitu ki nga xam ne mooy président économie général dem nañ fi ci euh, Afrique visité fi xool nañu doxal seen assemblée dem nañ fi France génne nañ benn xalaat boo xam ne jébbal ko président assemblée nationale bu fekkente ne def nañ ko assemblée nationale dina gën a mën a jouer rôle bi muy jouer mooy lan. danoo xool xam ne député yi bu ñu nekkee assemblée député bu ne yàgg sa jubbu bopp rek la assemblée nationale amul ay boroomi xam-xam yoo xam ne mën nañoo jàppale député yi ci seen liggéey mënuñoo mën nañoo jàpp mënuñoo jàppale euh, assemblée bi ci liggéey moo tax ñu ne danoo war a fexe ba créer benn benn kuréel boo xam ne dañuy recruter ay boroomi xam-xam yu xarañ ci wàllu économie ci wàllu droit. ak ci lépp loo xam dafa soxal réew mi indi leen assemblée nationale di leen fay ñuy jàppale député yi ak di jàppale assemblée nationale ci liggéeyam muy lu ñu wax cellule d' analyse et d' évaluation des politiques publiques loolu def nañ proposé bi jox nañ ko président assemblée nationale man saa wàllu bopp en tant que président de bi ma ñëwee assemblée nationale fexe naa ba lijjanti ay pexe ci ay nit jàppale ma lu mel ne forum civil ak OSIVA ba ñu tëgg benn règlement intérieur bu bees waaye nag su ma waxee sama dëgg mooy règlement intérieur bu ba léegi adopté euh, adopté wuñu ko. Euh, ci wàllu suma li may doxalee sama group mooy saa su gouvernement bi indee projet de loi dinaa dajale sama groupe ak ñi nga xam ne mooy gouvernement bi ñu xool projet de loi bi lan moo ci nekk la cay lu baax ak la cay lu bon bu ko defee ñu ci waxtaanee ba d'accord yi su ñëwee député yi mën a xam li ñuy wote wote ko da nga xam ne noonu la gën a rafet kon am na euh, ponk yoo am na euh, wet goo xam ne wax dëgg yàlla dox nañ ci jéego yu dëgër am na côté yoo xa ne jéego yu des naa dëgër li ci gën a rawatina mooy lu mel ne proposition de loi moom. am na fa député yi def nañ ko may agut lu mel ne commission d'enquête parlementaire mooy dara xew ci réew mi ñu wax député yi sos benn kuréel dem xool ba xam la xew lu ma def ci rapport loolu aussi am na demande man mi bokk na ci ñu demande woon waaye nag wax dëgg yàlla mën naa ne loola moom sottiwut. mais mais lu tax loolu sottiwut. waaw xam nga loolu aussi man euh, xam nga nit ku ne dafa am cër ci assemblée nationale euh, député bi li mu sañ mooy li ko yoon may mooy bu gisee dara xew mën naa ànd ak i député am ne dañoo bëgg ñu def enquête parlementaire waaye nag processus ba muy jaar ba sotti loolu dépendre ci député bi waaw loolu moom euh, moom laa ci mën a foofu moom laa ci mën a tontu. waaye nag wax dëgg yàlla yéenay demoon ay commission d' enquête parlementaire yéenay audition moom député yëpp du sax oppos du sax majorité bi rek même bi wane woon nañ ci bëgg-bëgg defoon nañ ci ay jéego waaye nag wax dëgg yàlla sottiwut loolu moom mën naa la ko mën naa la koo leeral. léegi règlement intérieur adopté guñ xam nga looloo si man li ma wax rek toujours man li ñu war a def mooy bi ñu ñëwee dañu fekk foofu benn jàngat boo xam ne jàngat bu xóot bu wane jafe jàngoor yi nga xam ne moo nekk ci assemblée nationale ñun bi ñu ñëwee nu jël jàngat bi benn étude diagnostique la professeur Ismaïla Madior Fall moo ko def union européenne moo ko financé woon ñu jël étude boobu dajale boroomi xam-xam ak i député yoo xam ne ña ngi fa nekk ñu tëgg tëgg réglementaire bu bees ne lii bu ñu ko doxalee assemblée bi dina doxalim dina gën rafet boole ci lu ma 200 recommandations yoo xam ne dañ ko war a def pour assemblée bi gën a taxaw waaye nag wax dëgg yàlla règlement intérieur ba ak 200 recommandations yi ba léegi euh, euh, euh, maanaam jëfewuñ ko may ñaan nag ñi nga xam ne ñoo fi ñëw bu bu bu dëwënee nekk député yu bees. loolu daañu ko fekk mu jumtukaay yoo xam ne ñun bi ñu ñëw assemblée nationale fekkuñu ko fa waaye nag fa lañ koy bàyyi bu ñu ko jëlee jàpp naa ne bu ñu ko tabaxaatee assemblée nationale dina mën a nekk bu bees boo xam ne xarkanam moom dina dëppoo ak ni ma jàpp ne moom la ko Sénégal yi bëggee. ñi nga xam ne ñoo fi ñëwaat bu déwénee nga bokk. ñaa ña ñaanuma yàlla bokk ci liste ñaanuma yàlla dellu si assemblée nationale li ma ñaan yàlla mooy bu lii mandat bi doon benn bi nga xam ne maanaam moom mooy bi ma façon yéene am mu nekk benn mandat ma bàyyi ko dem defe leneen waaw dafa bokk sama rek dama jàpp ne benn mandat man doy na ma parce que nag lee ma doon mag te bi ma dalee def politique yàgg na trop ma jàpp ne man su ma bàyyee xëy na ku bees ku ma gën di ndaw ku ma gën a sawar ku ma gën a xarañ dina jël sama place su ko defee damay jàpp ne loola moo gën ci assemblée nationale moo gën ci Sénégal c'est-à-dire. ñàkk base ba tax nga bàyyi. non mais xam nga man base joxuma joxuma woon joxuma woon député joxuma woon président de groupe donc xañuma ko loolu ba ma ko naree dama ba ma duggee assemblée rek laa façon yéene su ma amee benn mandat rek bàyyi parce que man loolu laa gëm dama jàpp ne toog ci nguur lu yàgg baaxul moo tax ma sàkku woon même bu jàppoon naa sax du ma àggale mandat bi na wax yàlla ki ma fa yóbbu woon moom moo ma ko yombalut moom ma ko yombalut dafa am loo xam ne nag euh, dama bëgg nit ñi bàyyi ci xel euh, Sénégal li ñuy wax baas xam nga lan moo lan lan lay indi cim réew mooy le clientélisme politique mooy jël alalu réew mi di ko di ko jënd ay nit pour ñu ànd yow ci politique mooy li si ànd gépp dina wax naan kaay kaay sàcc ma ma nax la maanaam jël alalu réew mi di ko jox ay nit di leen ko neexale pour ñu ànd ak yow ci politique tant que ñu ngi koy doxale Sénégal dana yéex a jëm fi mu war a jëm base politique amul xam nga lan moo ay nawle yu ànd ay nawle yu ànd nag pas-pas moo leen war a àndal waaye du ay koppar bokk na ci li ñu war a dindi ci réew mi nag ba léegi dañoo ko fi. bu ñëwee ci pétrole bi. Mhm. aborder point nee nañ pétrole bi daal daanaka ni ñu ko signé yooyu sénégalais daal ba léegi doyu leen parce que nee nañ quatre vingt pour cent yi tubaab bi lañ ko jox Sénégal dix pour cent la am si durée boo xam ne quarante cinq ans la loolu lan nga maanaam li nga waroon na def mooy gëstu ji àdduna bi yëpp naka la ñuy doxalee seen contrat yi maanaam bu nit ki ñëwee indi alalam ne la damaa bëgg nga may ma ma def prospection su ngeen d' accord danaan la lii laa la jox bu ñu gisee. suñ gisul dara dama ñàkk daf naan la lii laa lay jox bu ñu gisee bu fekkee gis nañ pétrole bu fekkee ñu dara nag man maa ñàkk c'est-à-dire prospection état bu Sénégal du ci fay dara kii ñëw di prospection moom mooy indi alalam def ci su gisee nee na nu bokk lii laa la mën a jox soo bëggee nga jël soo bëggul nga bàyyi. loolu moo am ci àdduna bi yëpp li am ci àdduna bi yëpp nag bu Sénégal bëggee def leneen day nax boppam. kon coow li ko ñoom ñoo la gën a xam ne taali bu kenn fàtte ne kii ñëw di def prospection mooy indi alalam su gisee xëy xëyul su gisut ñàkk Sénégal du participer ci prospection bi waaye nag bu demee ba gis bi nag ne man bu ma gisee pétrole bi nii laa bëgg ñu doxalee ko ni soo bëggee nga jël loolu nag moo xew ci adduna bi yëpp foo fi dégg réew mu am pétrole noonu la ñu parce que Sénégal fi ne ñun waa réew Sénégal xam nga ne xamuñu ndax am nañ pétrole am nu ay boroomi xam-xam ñoo fi indi boroomi xarañ indi seen alal ju bari du ay pompe ci suuf. ba gis pétrole bi wala gaz bi ñëw ne la gis nañ ko nangami ton la léegi danoo bëgg nag nii lañ ko bëgg a séddoo mooy dama lay jox nangam ji nga jël nangam ji soo bëggee nga jël soo bëggul nga bàyyi mu dem feneen cest à ñu ñëw kenn forcé wu leen loolu nag moo am ci àdduna bi yëpp li am ci àdduna bi yëpp nag bu Sénégal bëggee def lu sawaan ba day nax boppam. politique ba tey man koo taxaw Sénégal ñoom pare nañ fi ñu toll nii de ñu ngi jiital seen liste yi ñu ba léegi daal Eh. gisaguñ leen bu sama sëriñ déggoo goo fi listu ban manko dégg goo dañ ne comme Dakar dama ne manko manko génneegul liste fenn waaw génneeguñ liste li ci li ci teegu li ma ciy teg mooy xam nga gis nga dama wax ne maanaam li ñuy wax dajale ay ancienne gloire bu dee ci football taxul am équipe bu baax ni mu walaa bale ci football nag ni la walaa bale ci politique xam nga Sénégalais yi lan ah waa opposition bi dafa am àq buñ leen yoral Abdoulaye Wade daf ne woon Pape Diop day suul ni ay puune Abdoulaye Wade moom mu waxoon loolu war na la wax ndax waxoon na dëgg wala waxul dëgg su fekkee waxul dëgg kon Pape Diop moom maanaam xel waratu ko àdduna waratu ko jaar mu ànd ak Abdoulaye Wade que nit ku la jiiñ tuuma ji toll noonu waratu ànd ak moom. Alaaji Malick Gakou bi mu génn ci gouvernement bi daf ne woon daa mënatul a jubóog Abdoul Mbaye naka Abdou Mbaye mi nekkoon ci premier ban bon moo nekkoon ci moom ba mënta ànd ak moom ban génn nekk ñàkk a nekk premier lan lay sopp indi ci moom ci lu baax ba tax mu war a ànd ak moom Idriss Seck moo fi toogoon ne ànd ak Abdoulaye naan sàngara moo ko gën a kon ma jàpp ne ñoom xaar ma yàlla yi dox seen diggante ñoom opposition bi mu ëpp fop xaar ma yàlla bi bi ñu am suñ di suñ diggante ak ñoom kon ñoom war nañoo leeral jafe-jafe yu maanaam wuute gis-gis yooyu yu ñaaw yooyu ñu doon waxante démb naka lañ ko mën a jëlee teg ko fële ànd te ànd ba di dëgg li nga xam ne moo am solo nag la mooy opposition bi moom jàpp naa ne Sénégal xaarut ñoom dara 2012 ba léegi amul benn proposition boo xam ne teg nañ koy ci taabal ji ne lii bu ñu ko defee Sénégal dina jëm kanam lenn rek li ñuy góorgóorloo mooy sos nar ak tuumaal nit loolu nag du programme am réew di ci jëm kanam. président lan mooy sa kàddu gu mujj. xanaa ci émission waaye bu ma sañoon dina kàddu gu mujj dana dana waxaat yeneen wax. Euh, mooy gërëm leen rek ci ñëw gi ngeen ñëw. di euh, lancer un appel Alliance pour la République di lancer un appel euh, coalition Benno Bokk Yaakaar di leen xamal ne enjeu élection yi nu jëm du ay nit kiy nekk député mooy enjeu bi. enjeu bi mooy bu président Macky Sall amee majorité ci assemblée nationale su boobaa day lay mën a nommer gouvernement su boobaa lay mën liggéey bi nga xam ne tàmbali woon na ko mu àggale ko kon ma sàkku ci ñëpp di ko jiite sa bopp nit ñi fàtte seen bopp te xam ne enjeu bi. mooy ñu may may président Macky Sall mu am majorité à l'Assemblée nationale ba mën nome a nommer gouvernement euh, wolof nag euh, day wax ne maanaam na maye baat nangu nangu làmmiñ nit ku yiw du ko def moo tax ma jàpp ne Sénégal ginnaaw fan lañ président Macky Sall dinañ ko jox majorité dañ yeesalaat majorité bi ñu ko yeesaloon ci Assemblée nationale ngir jéego yi nga xam ne dox na ko te loolu ñëpp teg seen bët ba Sénégal mën a yokk ba kenn ku ne yëg sa bopp ci yokk bi loolu daal mooy appel bi may bi may lancé. Benno Bokk Yaakaar tey teg nañ benn am nga ci loo ci sànni. waaw loolu moom wax dëgg yàlla jàpp naa bañ ko war a def yàgg na lool parce que jamono juñ toll dafa communication da cee bokk Benno am na siège bu fonctionnel bennoo am na secrétaire exécutif bu ñu sos léegi nag am na kuréelu jeune am na kuréelu cadre am na kuréelu ancien yi jàpp naa ne loolu moom lu baax la man maa ngi leen di féliciter tey ñaa tey sàkku ci ñoom rek. lépp loo xam ne war nañ koo leeral ci li nga xam ne ñun ñu ngi koy liggéey ci réew mi ñu leeral ko lépp loo xam ne ay ay nar la ak sos yu ñu teg suñu del ñu mën ko wekki ba weddi ba mu set wecc loolu jàpp naa ne euh, waroon naa am bu yàgg ginnaaw dee door amit man du teema félicité leen encouragé leen di ñaan ñaan ñaanal ñi nga xam ne ñoom lañ dénk euh, boobu cër ñu am taxawaay bu dëgër ba li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom ñu mën koo def ni mu waree